salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum euh, yéen ñi nekk ci presse bi au niveau national comme international ñu ngi leen di nuyu di leen sant. wax benn say ne lii nga xam ne wax na ko ñun mënuñu koo dégg te mënuñu koo nangu ndaxte nag conseil constitutionnel dafa am lu mu tëral ne jaar leen ci yoon bii ak bii ak bii boo leen bëggee nekk candidat ñu nangu ko wóolu ko lim ñu teg ñu jaar ci yoon woowu ba conseil constitutionnel pare nañu yéen yéen ay candidats yi war a dem élection présidentielle Macky Sall ne nous a pas désignés comme candidats à cette élection présidentielle. Il ne peut pas aujourd'hui munta taxaw décider ne que ñun duñu dem ci élection yi tey dañu am rendez-vous avec le peuple dañu am rendez-vous avec les Sénégalais tey à partir de minuit maa ngi woo ñépp ñu nekk ci le mouvement ARC alternative pour la relève citoyenne di woo suñuy militants suñuy sympathisants di woo ñi nekk ci coalition de la relève ak Anta Babacar nañu jàpp ne campagne présidentielle dina am te tey lay tàmbali ci minuit ñi ngi xaar mu génne décret nous allons attaquer ce décret parce que teguñu fi bi ñuy jukk di investiru ne dañu bëgg a taxaw liggéeyal suñu réew tàgguwuñu ko laajuñu ko aviwam dañ see dugg ndax suñu devoir la suñu responsabilité la te du moom moo ñu tax a delloo ginnaaw lim fi def ba coono am ba ay xale dee ndaw ñi di jël jaral leen ñu dee ci géej gi dem bitim réew nit ñi di jooy ndool njàng amul faju amul Sénégal toll fi mu toll ci njàqare tey ñu taxaw bëgg ñoo imposer une nouvelle forme de troisième mandat duñu ko nangu ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ et on interpelle la communauté internationale ñi ngeen ñuy dégg Voici le bilan du président Macky Sall. Et c'est dommage et c'est regrettable parce qu'il a failli, il a failli partir au moins avec la tête un peu haute. Mais là, Malheureusement, il vient de montrer le vrai visage. Les masques sont en train de tomber. Il essaie de faire un hold-up électoral. Ça, c'est quoi C'est un coup d'État constitutionnel. Et nous ne l'accepterons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais avant tout, avant d'être des politiciens ou des candidats. Nous sommes la jeunesse, nous sommes les femmes, nous sommes les dignes fils de ce pays. Et nous avons le devoir de répondre à l'appel de notre peuple. Le président Macky Sall et son régime n'ont jamais été à l'écoute. depuis ñetti at ñenki ñeenti at ñii yuuxu nañu ñii jooy nañu ñii dee nañu lu ne xew na fi muy woote ay dialogue ak i waxtaan ak i conseil ban solution benn solution xool leen li xew tey mu ne ñan la waxtaanal mu ne ñan la waxtaanal waxtaan na avec les président des institutions waxtaan na ak conseil constitutionnel et cetera et cetera mais dafay fàtte waxtaan bi ëpp solo mooy waxtaan bi avec le peuple sénégalais waxtaanul avec le peuple sénégale dégluwul xamul lu xew ci réew mi ba nga jug abal ñu ñu la relève et c'est la génération qui le demande je vous remercie c'est demain j'appelle tous les militants dañ koy caravane ba mu saf-saf nañ ko taxe fii jàkkaarloog on démarre la campagne présidentielle incha allah di remercier nag euh, les autres candidats xam nañ ne que l'union fait la force merci